mbokk yi ñuy teewlu ci seneinfo point net seneinfo international jërë ngeen jëf daleen ak jàmm ci seen tënku xibaaru bés bi màggalu Kazu Rajab nag tey la nekk bés boo xamante ne ni dañ màggal kii di Serigne Fallou Mbacké nekk doom ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba moom Sëñ Fallou nag moo nekkoon ñaareelu xalif généralu Muriti di leen ñaanal ñuy fekkee màggal boobu ñu di leen ñaanal màggalu jàmm moom président Macky Sall nag ñi ñuy xamal ne tey jii quitté na Dakar jóge na fii ci Ndakaaru ngir dem fële ca Addis Abeba nekk ca Éthiopie ndaxte dafa war a teewlu benn conférence bi nga xamante ne nii ñoom chef d'état africain yi dinañ ko fa amal. procès bu doxoon démb si diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang yóbbuwaat nañ ko tamit ba 16 mars bii di ñëw si procès boobu nag démb ñoom ñu amaloon ko Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang kii di Sonko nak si yoonu ñibbeem nekkoon na lu tàng torop ndaxte ñu ngi gis ci ay vidéo ginnaaw bu ñu écarté bépp journaliste partisan yi ak garde du corps am moom Ousmane Sonko ñu ngi gis ci image yi ñu toj vitram ñii di agent bip yi daal di ko génn ci otom yóbbu ko ba këram loolu ba tax na ci guddi gi nag moom Ousmane mu daal di def déclaration di xam ne dafa nekk sous résidence surveillée maanaam mayatuñ ko benn droit ngir mu génn ndaxte moom tamit ci ngoon gi amaloon na benn conférence de presse bu mu organiser woon woote woon ngir jàkkaarloo ak presse bi waaye mënul woon génn benn yoon dañ ko tënkoon si këram di xamle tamit ni këram force de l'ordre yi dañ faa wër ñu ko benn yoon moom mu dem fëpp fu mu bëgg dem ci loolu Ousmane Sonko nag si si déclaration bi mu defoon démb mu ngi xam ne ne soxlawul lu benn yoon ku ko yërëm mais day woo nit ñi ngir ñu xeex si loo xamante ne nii du yoon étudiant wu université Cheikh Anta Diop ñoom tamit ñu ngi amal am njàmbaarloo ak takk der yi si suba it ñu ngi nekk ay partisans wu Ousmane Sonko di ñaawlu lu fi jot a ba tax na ñoom étudiants yooyu ñu ngi njàmbaarloo ak yooyu lay takk der fële ca université Cheikh Anta Diop. séisme bi amoon na Turquie nak moo yëngu-yëngu bu seen suuf si amaloon séisme bi nak daal na di jur ay musiba yu bëri bu ñu compter li ñuy jot a ñàkk si ay matériel ba pare li fa jote a wadd si ay bakken bëri na lool ñu ngi compter sax lu tolloo 41 732 doomi aadama yi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakken sans même que ñu compté waale nga xamante ne ni am nañu ay gaañu gaañu bu ñu demee ci Turquie nag 38 044 personnes ñoo fa ñàkk seen bakken ci Syrie tamit ñu fa ñàkk seen bakken tollu ci 3 688 loolu yëpp suñ ko boolee muy 41 732 doomi aadama yi nga xam ne ñàkk nañu seen bakken ci boobu tremblement de terre ci sport ñu ñuy xamal ne kii di ministre des sports Yankhoba Diattara démb nag demoon na seeti kii di Sadio Mané ginnaaw bu mu amee ab blessure bi nga xamante ni nii taxoon na jotula jouer ci coupe du monde bi Yankhoba Diattara demoon na démb Munich ca Allemagne di masawu kooku di Sadio Mané bu baax a baax Sadio tamit daal di yëkkati ay kàddu dina lu naa bu baax a baax teewaayam ba tamit jot na fa dajeex ki nga xamante ne nii moo di Bouna Sarr mi nga xam ne moom tamit teewul woon si mondial bi mu di leen massawu bu baax a baax moom ba Diatara mbokk yi ñëw teewlu woon si seneinfo point net seneinfo international di leen jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi di leen jox dig daje altine incha allah jërë ngeen jëf